bismillahi irrahmani irahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabi wa man wala mbokk yi ñu bokk yàlla seen mbokk imam Jabel Kouyaté dellu soit ak yéen ci seen waxtaan yi nga xam ne digen ko am du lundi au jeudi ci weeru rajab bi yëpp di leen ndokkeel ci euh, premier numéro bi incha allahu taala wax ni weer wi dugg na tersi na yàlla ñu fi déwoon fekk kenn bañ a manqué te ñu tal ko ci barke yonent yàlla muhammad mbokk yi ñu bokk yàlla xam ngeen ni suñu borom wax na ci alquran ca suratu tawba inna addata alshuhuri inda allahi ithna achara shahran fi kitaabillahi yowma xalaqa alsamawati wal ard minha arbaatu xurum ca suratu tawba ila axiri borom bi dafa tënk weer yi muy fukki weer ak ñaar waaye fukki weer ak ñaar yooyu dafa am ñeenti weer yoo xam ne moom la ñu tuddee ashurul xurum muy weer yi yàlla ormaal mu màggul lool rëy fa yàlla bu doon jamonoy xare sax trêve lay doon kenn du ci xare ndax ormal bi ko yàlla ormal weer yooyu ñooy zulxaqda zulxijja muharram ak bi nga xam ne nag mooy rajabul fardi ñu koy tuddee rajabul fardi ndax ñetti weer yi dañu toftaloo muy zulqaada ak zulxijja ak muharram rajab nag beru ñu koy tuddee rajabul fardi mbokk yi ñu bokk yàlla niñ ko waxee démb rajab mooy weeru yàlla loolu rek doy na Chaabaan di weeru yonent bi moom mu séddoo ko waaye Ramadan yàlla tànnal ko xet bi mbokk yi mu nekk ñetti weer yu sell di weeru promotion luñ ci mën ci jaamu yàlla ñu def ko. xam ngeen ni premier numéro bi ñu dugal démb wax nañ fa tabaarakallaahu lu jëm ci wàllu naafila yi ñu war a def ci yamul xamiis maanaam wala laylatal xamiis maanaam guddi ajjuma bi njëkk ci weer wi naafila biñ ciy def joxe nañ ko tey nag ñuy ñëw ci ngëneel yi ci woor ci weeru rajab mbokk yi ñu bokk yàlla jëlee nañ ci anas ibnu malik mu jëlee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, balaa ñu ñëw ci koor yi ñu wax ci naafile yi naafile bi ku ko mën nga koy def chaque timis ba weer wi jeex fa tabaarakallaahu soo ko mënul def ko chaque semaine boo ko mënul def ko benn yoon ci weer wi mu ni man salla baada al fi laylatin min ar rajab rakaa yaqra'u fi kulli rakaatin fatixata alkitaabi wal ixlaas wa sallama achara taslimat xafida allah xafidahu llahu taala wa ahli beytihi wa ayaalihi min balaa'i dunia wa adaabi alaaxirati jëlee nañ ci anas mu ne jëlee na ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko képp koo xam ne julli nga timis ci benn ci weeru rajab bi nga julli timis boo sëlmale timis bi nga nag nga naafile vingt rakk ak fukki sëlmal rakk bu ne fatiha benn yoon qul allahu ahad benn yoon nee na ku ko def yàlla wattu na la yàgg sa waa kër ak sa njaboot ci bépp balaak musiba fii ci àdduna bu war a wat ci at bi waaye tam yàlla dina la musal ci mbugalu ëllëg yomal qiyaamati kon loolu mooy naafila yi bu ñëwee ci koor yi incha allah eh, fa tabaarakallahu yonantu wax ni sallallahu alayhi wa sallam ala inna rajab shahrullahi al asam rajab bi mooy weeru yàlla bu tëx bi tëx mooy dafa tëx ci bàkkaar loo ci def ci lu baax yàlla da koy koy fudandir bu dee bàkkaar boo ko tuubee rek yàlla jéggal la ko ci saasi mu ne nag fa man saama minhu yowman imanan waxtisaaban istawjaba alayhi ridwanullahi ak akbar ku ci war benn fan te sellal ko sàkku ci yoolu suñu borom yàlla warlul na la ni di nga am lu ëpp aljanna te mooy ngërëmal yàlla mbokk yi loolay waxtaan bi ak seen mbokk Imam Diawel Kouyaté ba beneen numéro ci rajab bi ci weer wi bu leen fàtte génn ay sarax ak i ñaan dinañ ko wax ci beneen uju salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk imam Jabel Kote